asalaamaaleykum mbokk internet suñu gaal 24 ñu ngi leen di nuyu di leen ziar comme ni ñu koy baaxe rek di amalee saa su ne ci suñu gaal 24 euh, nee naa leen lépp lu xew ci réew mi rek dañ leen koy daal di indil rawatina nag émission bu mag bi lee nga xamante ni euh, moo di euh, suñu gaal suñu gaal nag comme ni ñu koy faral rek di defee lépp lu nga xamante ni moo xew ci réew mi wala àdduna wërngal këpp wala actualité bi nga xamante ni moo ne ci jamono ji dinañ ko fi waxtaanee bokk na nag ci lu métti métti muy naqar ak tiis lu xew foofee nga xamante ni moo di Kaolack ñu gis safaru footballu euh, euh, euh, malien boobu daal di jaar ci kaw taxi bi ñu ci bari ba li ñu mën a xayma mooy ñeenti doomu aadama daal di ci ñàkk seen bakkan ci saasa mu jur nag coow lu baree baree baree bari naka noonu nag dañoo daal di dalal kenn ci ñoom ci nga xamante ni ci ci loolu lay yëngu bari na nag ay mouvement yi nga xamante ni jokk nañu ci kawam muy Abdoul Aziz saw ñu naan ko Zil ah ñu bari naan ko Souleymane moom la ñu dalal fas yéene sekk ak moom waxtaan Souleymane maa ngi lay nuyu Lalla maa lay fay maa lay maa lay fay bu baax di la di la sant di la gërëm aussi ci invitation bi waaw di nuyu sama mbokk transporteurs yëpp nekkal fi kàddu tous les jeunes transporteurs du Sénégal rawatina chauffeurs et tous ça quoi di nuyu sama sama partenaire monsieur Albert depuis la Belgique. Mm-hmm. Uh, mi ngi noonu Souleymane uh, gannaaw ba nga bokkee ci yooyu le uh, kuréel naqar ak tiis daal di xew foofee ca Kaolack ay doomi aadama ñàkk ci seen bakkan bi nga ko yëgee ban yëg-yëg la def si yow. waaw yëg-yëg bu metti la yëg-yëg bu metti la parce que tey jii booy xool ñoo ñu ñàkk seen bakkan dañoo xëyoon am ay yitte yuñ doon dox. mais nag aussi dañuy wasu lépp ci yàlla suñu borom parce que da xam ni loolu bës la woon loo xam ni yàlla moo ko def. seen bakkan foofu la waroon yam ñu metti trop ñuy ñaan yàlla gouvernement bi dox ci li mu def def ci nampaay beeg yëpp. Mhm. mais au fond li ko waral lépp mooy dafa nekk loo xam ne transport doon na ko jooy depuis des années gars yi nanguñ ko dégg parce que lu toll ni ville de Kaolack amul benn transporteur routier boo xam ni muy sénégalais wala muy muy malien wala muy gambien bu mën a jaar au niveau ci biir ville bi. en plein matinal ou bien deux heures jusqu'à dix-huit heures dix-neuf heures nga xam ni marché yi Kaolack ni mu xatee tout mhm. ça. war nañ mën a wut benn voie boo xam ni contournement la boo xam ni day nekk péage boo xam ni. da ngeen di dañuy teggi oto yëpp dañuy teggi di moo dugg Kaolack di génn sans population bi du ñu xam ni sax oto moo ngi dugg et tout sax mais foofu ni muy xatee noonu ak camion boo xam day yeb plus de cinquante tonnes plus de cent tonnes ak ak surtout les Maliens les camions nouveau modèle ñooñu seen i accélération ak seen i ñoo ëpp doole daal. camion yi nga xam moom la ñu yor ñun. Mm-hmm. loolu tax accident bi xaw a xaw a métti trop mais aussi tamit boo gisee impact bi li ko gën a doy mooy tey jii parce que sénégalais dama yaakaar ne dañuy foowee technologie wala affaire bi noonu parce que accident bu toll noonu nga jël ay caméra di ko filmer jeunes yi nekk di toj ay oto malien en moins de trente minutes ci la attaque bi am Mali am. Mm-hmm. actuellement nii boo demee au niveau de Diboli au niveau de Kidira wala nga dem au niveau de ba Bamako y' a plus cent cinquante camions sénégalais yoo xam ni ça a été pare-brise yi pono yeeg batterie yeeg tout chauffeur yi daw nañ mu metti loolu ma bëgg a xamal ni Sénégal actuellement nii moo ngi dund souffrance boo xam dans le transport nit mënu la ko nettali actuellement nii parce que li ñuy vivre fu ma nii ci transport bi fu ma dafa ëpp sénégalais yaa ngi Mali sonn fa sonn boo xam ni mais kenn waxul ñun suñu camions yi dañ leen a dañ leen a dañ leen a saccagé complètement chauffeur yaa ngi fa amatuñu lekk amatuñu naan. d' accord camions yi dañoo yor chargement di dem ñi dañoo war décharger pour ñëw. d' accord mu nekk affaire bu catastrophique mhm. est que gannaaw ñoom bi nga xamante ni yàq nañu seen camion yu bari ndax euh, euh, yéen benn bi benn bi nekkoon fii rek ngeen jotoon laal wala da ngeen laal yeneen camions. yi non parce que fii booy nekk Kaolack as euh, infraction bi métti na dañu mer waaw dafa mer loolu loolu normal. parce cinq camions maliens waaw li nga xam itam bañ koy yàq aussi dañ ko jëloon di ko vidéo di ko lancé si WhatsApp bi. Mhm. WhatsApp boobu noonu ak technologie bi moo dugg biir Bamako gars yi gis ko léegi nag jeunes yi nekk ko aussi révolté wu. Mhm. parce que ñooñu di yàq camions yi aussi il faut que ñu rappelé wu tamit par peut être fougue de jeunesse moo dal mais seen papa amul camion seen yaay amul camion. Mhm. en toute franchise parce que tey jii da ngay xool tey ñii actuellement nii boo xoolee tey transport sénégalais muy tey muy muy muy muy Loïs. nga dem muy Daniel Faris mu ñoom ñuy jaay PC ñëpp ak ñi nekk garage Jabel transporteur Rufisque ak yëpp boo xoolee ñëpp a ngi nakarlu tey boo demee Thiès si Ndiassé wala nga dem Thiès euh, garage Mor Mbengue mais c'est des transporteurs yoo xam ni dañuy créer emploi comment dañuy jël ay chauffeurs di leen fay par mois en même temps seen garage yi am ay tôliers ay soudeurs ay électriciens et tout ça c'est à charge kon ñooñu tey da ngay gis ko transporteur boo xam tey dafa am possibilité am benn camion ki am possibilité am trente camions. Mhm. mais ki am benn camion parfois il a fait un prêt à la banque pour pour mën a di liggéey et tout ça mais actuellement nii ak trajet bi ni mu demee nii ak Mali mille trois cent kilomètres du Sénégal ni mu méttee noonu tey jii chauffeur bu duggee Sénégal day tumuranke complètement qu'on se dise la vérité ñaata chauffeur tey sénégalais ñoo nekk biir ko dans les prisons on n'en parle même pas parce que lan lañ fa rey ginaar lañ fa rey ah rey ñu lañ fa rey ginaar. Mali boo fa fiiree ginaar wala nga wala nga wax ak faak policier sa àdduna yàqu na tu risques de perdre ton camion. ci ay détails ci chauffeuru sénégalais yi. fay bi ñu leen fay baaxul te tey fii Sénégal chauffeur transporteur boo fi gis muy ñammi ñammi wala muy wax wala muy tëbaka dal wala muy jënd ay oto wala loolu chauffeur moo ko liggéeyal. Mhm. chauffeur day jël fii camion yóbbu ko ba ma ko décharger cinquante tonnes wala cinquante cinq tonnes chauffeur foo ko mën a fay les chauffeurs gagnent cent mille dañuy souffrir souffrir boo xam ne kenn mënu la ko wax dañuy souffrir su parce que boo xool tey port Dakar kan moo ko moom Sénégal moo ko moom. Sénégal moo ko moom mais Maliens ils ont plus de priorité au Sénégal tey boo demee garage malien wala nga dem Rufisque foo mënti dem ils garent partout boo demee plateforme au port ils ils garent comme ils veulent ils ont leur famille ici ils sont pas en danger. mais nous les Sénégalais nous sommes en danger au niveau de Bamako au niveau de Kaay au niveau de Dipoli. Mm. aujourd'hui ça fait deux mois trois mois on n'arrive à faire du transport et pourtant on paye tous les mois nos chauffeurs dañu yor ay camions askan nekk suñu ginnaaw suñu njaboot actuellement nii dëkk bi gisoo kenn wax gisuma transporteur bu wax te y' a plus de cent cinquante camions au niveau de Bamako saccagé. d' accord euh, mi ngi noonu wax nga lu am solo euh, bu ñu defee xay lim bi mënuñu def xayma bi dégg naa yéen am na lu ñu leen ci euh, jot a yàqal est ce que mën nga ñu wax xayma bi. xayma bi non ay c' million des millions c' est des yoo xam ne tey au niveau de Diboli bu ñu jëlul indi leen Sénégal lu ñibbisi. parce que moo mootuñu daw te loolu franchement ñun jeune transporteurs yi fii Sénégal transporteurs yi ñun Macky Sall la ñu àndal ah. ñoo travail pour ñun suñu lépp Macky Sall la mais ba tey dégguñ ko mu wax amul benn autorité tey boo xam ni moo ngi ciy wax pour nàmpaay dimbal leen parce que tey jii lii buñ si jugul tey Sénégal transport Sénégal day yàqu te day créer haine un jour bu dul tey di suba bu dul ginnaaw suba sénégalais dinañ Mali dinañ mës a xëy song malien yi de par cri de cœur dañ koy song te boobaa day indi guerre boo xam ne doo xam fan lay mujj kon déjà gouvernement bi dafa war a taxaw parce que faculté yi dañoo war a woo tous les tous les facultés yoo xam ne ñoo nekk ci transporteur bi muy gros yi muy commerçant yi ba ci apprenti yi ba ci chauffeur ñëpp toog waxtaan xool ban trajet lañ mën a jël pour xool parce que problème SC yi tey da nga gis camion boo xam ne tey il a possibilité de prendre 30 tonnes 35 tonnes ñu ne ko léegi on paye par tonnage. d' loolu dinañ si dinañ si ñëw Souleymane xam naa dañuy taxaw rek euh, ci jafe tuuti est ce que bu ñu demee euh, yéen chauffeurs yi wala transporteur bu ñu duggee Mali est ce que mun nañ xam yan jafe ngeen fay ngeen ngeen fay am. Kaafoor bu duggee Mali du wax ba ni muy génnee. ndax lan. parce que Mali amul loi boo waxee boo duggee xasee ba génn frontière u Sénégal. Mhm. ba ni ngay eggee Mali chauffeur bi dina pay dina fay plus de cent mille francs ci ay post pour arriver à Bamako pour décharger en ah, plus de ça bu egsee Bamako dafay wut guide. poste yi force la. force la ñu ngi defar poste yi mu taxaw. comme poste yi ñu am fii poste ay bërigo la ay bërigo yu ñu teg ay maliens taxaw da ngay fay. affaire yu ñàkk fayda yoo xam ne mënoo comprendre soo demee Bamako doo dugg ko te vingt deux heures jotul pourquoi parce que le gouvernement ko bëggul benn camion daw matinalement di yàq ay di toj ay di di di rey ay nit wala accident moo tax da ngay toog ba 22 heures si guddi nga dugg ba ma ko bu fekkee yegg nga boo yeggee tu perds 24 heures en Bamako pour décharger ici au Sénégal n'importe quelle heure tu as le droit de rentrer à plateforme port foo jëm da ngay dugg. d'accord est-ce que bu ngeen yeggee tam aussi seen camions yi am ngeen fu ngeen ko gaaree ak yooyu décharge bu leen indi problème. non on n'a pas de parking sénégalais au niveau de Bamako Bamako amul parking sénégalais ici au Sénégal il a plus de cinq parkings Bamako euh, Séné euh, maliens yoo xam ni presque mën naa la c'est plus de cinq hectares te ñoo ngi ko aménagé normal ils ont ñun ñooy def difficulté boo xam ne mënoo comprendre. actuellement nii amoo kenn koo xam il ose mettre de l'argent dans le transport loolu li si financé parce que c'est un risque bu sa camion demee Mali doo nalaw bu sa camion demee Kidira doo nalaw bu demee frontière doo nalaw parce que danger yi dañoo bëri et aussi en plus de ça les chauffeurs amuñu ay aire de repos les chauffeurs c'est des routiers tey jii foo taxaw muy mbuur wala muy Kaolack wala muy Fatick wala muy Kaffrine foo taxaw municipalité bi day ñëw téye camion bi fayaloo ko 10 000 wala 15 000 wala 20 000 a des postes gendarmes un peu Sénégal chauffeurs yi mënatuñu noyyi transport Sénégal nit mënatu ci jënd ceeb mënatu ci jënd diwlin parce que dafa yàqu définitivement. Mm. on en souffre. Mm-hmm. vraiment. d' accord euh, yéen ñi nga xamante ne ñoom ñooy chauffeurs yan jafe la ñuy am euh, sànq maa ngi koy dégg ci sa biir wax boo fa laalee ginaar sax ñu indi la ñu indil la problème. boo fa laalee ginaar da ngay fay waxuma la nit boo fa laajee nit da ngay dugg ci prison bi dama ne la boo fa laalee ginaar da ngay fay xaalis Mali boo fa duggee dañ lay saaga doo wax. fii amul benn sénégalais bu am fitu saaga malien wala mu dóor malien soo gis sénégalais policier sañul jàpp oto malien mais boo demee tey jii tey jii Tamba wala Kaolack wala feneen gendarme yi may ñu camion sénégalais yi ñu nooyi on en souffre tellement que c'est pas c'est pas vrai tout le temps y a des postes chauffeur bi dina am cent mille à cent cinquante mille francs yoo xam ni lépp ci ay post la koy jox diggante Sénégal et Mali quel avantage chauffeur bi day dem 10 jours 11 jours ou 15 jours pour faire un aller-retour au niveau de Bamako bu ñëwee day sonn dootu ci mën dara parce que amul ay aire de repos bu dee ba Kaolack du am fu mu taxaw pour mën a sangu ba set mën a noppalu ko nalaw te camion bi day chargé li muy chargé marchandise la c'est à haut risque mënu ko gaare ci àll bi mënu ko def leneen ak leneen loolu moo indi problème bi lii ngay gis yëpp loolu moo ko indi il faut ñu revoir comportement wu su comportement wu sénégalais comportement wu transport Sénégal il faut ñu revoir ko parce que essier yi fi def nii pour ay def 4 acier pour mën a yeb ou 52 tonnes pas évident. parce que da ngay gis koo plateau il arrive même pas à prendre 35 tonnes avec l' acier. plateau bi euh, mooy li nekk ci ginnaaw. camion camion bi. li nga xam ne moom mooy yeb bagage yi. li ngay yeb bagage mais boo defee benn acier soudeur bi soudé la ko da appliquer parce que bu ko appliquer ne acier bi il faut nga teg tant de tonnes pour mën a acier bi nii léegi transporteur bi ce qu'il fait c'est de gagner son pain et pouvoir payer les assurances payer les chauffeurs et tout ça loolu du ko mën il va falloir que moom mu dem def beneen acier monter quatrième acier pour pouvoir def chargement wu 50 tonnes. Mhm. et c'est ça mooy yàq tali bi ça arrange pas. arrangé wul transport. arrangé wul chauffeur bi dawal camion bi en plus. d' accord man li ma jaax Souleymane mooy boo déparé fi jëm Kaolack di nga dajeeg lu mu dee dee sept camions yu yu daanu ci àll bi Dóor waar problème bi lan la lan lan lan moo leen di daanu. mais le problème c' est tonnage. parce que a camion. qui a une capacité de 35 ak léeg-léeg tam ñu def ay ay ay choc yu doy waar. mais un camion qui a une capacité de 35 tonnes soo ko chargé 55 tonnes wala nga chargé ko 60 tonnes mais camion bu amatul équilibre kooku mënatul taxaw. en plus ça chauffeur yi dañuy sonn pour vous dire da ngay gis transporteur boo xam ne tey bu yabee chauffeur doo du fay téléphone am tant que bi eggul Kidira da koy mettre la pression ah chauffeur du ñu noppalu ko ils sont fatigués te salaire bi ñu leen di fay baaxul c'est une salaire de cent mille francs mais actuellement nii boo demoon léegi-léegi Diboli wala nga dem Mali wala nga dem Kaay mais sa yaram day daw da ngay jooy le transport Sénégal est en faillite imaginons tey Sénégal xoolal ciment bi li muy jar. mais nous sommes dans un pays de 16 millions d'habitants nous avons trois usines de cimenterie qui fabriquent plus de tonnes par jour pourquoi le ciment ou francs la tonne ici au Sénégal te te mu nekk suñu dëkk et tout ça kon il faut que ñu revoir l'économie du pays quoi c'est très très important. Mhm. oui. d'accord euh, euh, mais yéen tey yooyu nga xamante ne moom moo am ay yàqu-yàqu ma foog assurance ngeen war a topp. mais assurance en fait euh, l'assurance oui mais y a la c'est-à-dire que tu vois quelqu'un boo xam ne day am xaalisam mu dem jënd camion jox ko chauffeur pour liggéey kooku il n'est il n'a pas les les normes normes yi war a def si transport xamu ko par rapport ak ñun on a une société transport nouvelle avec des notariés notariés avec un avocat et tout financé par le patron Albert ñii siy liggéey depuis presque un an ou deux ans trois ans ñu ngi ciy liggéey on n'a pas de problème d'assurance et tout ça parce que ñu xooluñu suñu bopp ñun dañuy jooy ñun jooyuñu parce que ñun yàqul lañu ay camions dañuy jooy pour tous les transporteurs du Sénégal. ak jeunes yi nga xam ne ñoom moom seeni i oto dem ba dibool natt bi dal leen fa. président de la République dafa war a jug mettre leen en charge photocopie camions yi ñu yàq ñoo ngi fi photo yaa ngi fi tout est clair ñu endommagé leen dimbal leen pour ñu mën relancer seen liggéey. c'est ça qu'on veut. mais mm. ñun waxuñu pour ñun et tout ça ñu oh, dañuy dagg assurance mais ñaanuñu yàlla topp assurance bu ñu sañoon oto daal du ko mbëkk et tout ça. Mm. dañu bàyyi xel ne tamit aussi accident bu amee ndogalu yàlla la yàlla moo koy indi. lu am la jarul sànni xeer jarul dóor chauffeur jarul rey chauffeur parce que lii yàlla moo si def jàmm mais moon na gën a sori. Mm. moon na gën a sori chauffeur yi nekkoon Sénégal ñëpp dañoo daw. dugg ci àllu Mali bi ñu yàq seen oto ba ñu jeex ci suba si lañ xëy ñëw jusqu'à présent ñoo ngi si ay problèmes yu doy waar. te loolu pour man war nañ ko mën a xoolaat quoi mais li ma jaaxal dama déggul benn autorité sénégalais boo xam ne dafa jug pour wax ci man dama di est-ce que Macky Sall na ko lii c'est une actualité. Mhm. ministre transport bi ministre transport Mali et tout sax mais lii est-ce président Macky Sall yëg na ko parce que lii bi ñu ko seetaanee trop tard day indi xen parce que ki am benn camion. malien yàqal ko ba mënatul liggéey et tout ça tôt ou tard il fera attaque à un, à un malien ici au Sénégal. d'accord ou tard. Mhm. Euh, euh, est-ce que mën nañu xam jafe-jafe yi ngeen am biir Mali lan la parce que dégg naa bu ngeen fa xasee ba dugg sax euh, da ngeen di fay maanaam guide lañ koy waxee dóor da ngeen di fay ay guide pour ñu ñu ñu war war leen war leen yóbbu fi ngeen war a décharger. c'est le système malien malien yi ñoo incarné loolu parce que à 22 heures moo dugg boo duggee dëkk boo xam ne xamaloo ko il faut jël guide. fay ko dix mille francs pour mu mën la yóbbu wan la destination de déchargement bi malien yi sénégalais yi xam xam Mali yëpp même boo xamee Mali il faut nga jël guide parce que boo jëlu guide da ngay commencer am ay problème il y a les agressions y tout. ñoom daal bëgguñu daal dara lu lu lu laal seen dëkk daal. non non non parce ñoom boo fa xasee ba dugg ci yoon ngay nekk. ba keroog ngay gaare ba keroog ngay gaare. par par rapport ici au Sénégal Sénégal fii malien bu fi nekkee day nekk si jàmmam. waaw day ñëw tekk si jàmmam duñ ko laal duñ ko def dara. Mhm. parce que ba déjà malien amul sax assurance CEDEAO pour dugg Sénégal ñun bu ñuy dugg Mali bu ñu amul assurance CEDEAO bu ñu amul licence internationale dootuñu ko def. Mhm. mais amul benn oto malien bu am licence internationale wala mu am assurance pour dugg Sénégal. waaye mhm. mais seen oto yàqu moom assurance ngeen war a topp dinañ leen fay. assurance lan lañ tegagum seen loxo. non dara tegaguñ dara su déggaguñu dara tegaguñ tegaguñ dara si loxo kenn mais avant assurance et tout ça. ñu dañu soxla suñu président de la république pour mën a toog wax ak moom si faculté transport bi xool nu ñu mën a jàppalee parce que ñii nii nekk Diboli mënuñu xaar assurance le temps presse c'est de parents de famille chauffeur yi bu ñu daw lañ leen di fay et tout ça man foofu laay waxee actuellement. Mhm. oui d'accord euh, tey bu ñu la laajoon Souleymane solution bi lan la lan ngay lan ngay lan ngay xalaat. mais la solution principale mais c'est simple. Tambacounda, Kidira, département, Kidira, nous avons des hectares, des milliers, milliers d'hectares forêts. Yo c'est une forêt classée. Pourquoi pas Macky Sall nous fa def une plateforme, un port sec. Au lieu que Malien bi jugee ba jugé ko di ñëw pour def 1300 km pour rentrer à Dakar, mu def 600 km. Sénégalais bi dem Mali def 700 km. Ce sera plus simple parce que au-delà ñun dañuy jël suñu marchandise bi ici au port on le dépose dans la plateforme au niveau de Kidira Maliens jël ko au niveau de Kidira pour les ramener dans leur pays au delà tey jii suñu transport kon dafay dox. transporteurs yi dañuy gagné parce que boobaa marchandise bi ci port bi yëpp ak ciment bi ak ceeb bi ak diwlin bi ak les conteneurs tout c'est les camions sénégalais qui doivent le ramener au niveau de Kidira mhm. là on va créer une autre plateforme un port sec au niveau de Kidira auquel ce sera bien financé mhm. et si c'est financé déjà mhm. le Mali bu ko financé Sénégal bu ko financé là forêt boobu y des stations day am ay banques dafay am ay habitation parce que boobaa jeune Kédougou wala jeune bu nekk Tamba wala Kaolack tu vas plus avoir rêve pour venir à Dakar mais non plutôt tu vas aller au port port de de Kidira pour trouver du travail parce que là tu vas créer plus de 5000 emplois ou 6000 emplois mmh. là le Sénégal le Sénégal doit se décentraliser le président doit décentraliser le pays aucun Malien n'a le droit de rentrer ici au port de Dakar pour prendre de la marchandise Nous, nos camions sénégalais doivent prendre la marchandise pour l'amener au niveau du frontière Sénégal et que les Maliens doivent le reprendre au niveau du problème du frontière Sénégal et le faire en échange pour Bamako. Là, ce sera plus facile pour le transport sénégalais. Comme ça, il n'y aura plus de problème. Et en plus de ça, le Sénégal va créer un, dafay créer benn benn plateforme boo xam ne tey jii emploi de jeunesse bi muy def mooy ëpp doole parce que foofu c'est vide tey on est en vingt-et-unième mais boo demee Tamba mais boo demee Tamba dem douche da ngay tiit da ngay waaru ci yàlla mais pax nga fay fekk ak ay pono mais ki nekk Dakar Sénégal Dakar li mu war a mën a am lu tax ki nekk Tamba war ko mën a am Tamba àll bi xanaa xamoo mën nga ci daw trois 300 kilomètres ci biir àllu Tambacounda de Tamba fait 10 fois Dakar et pourtant amul benn infrastructure pourquoi mun ñu fa yóbbu port sec le département de Kidira formé benn port sec boo xam ni c'est plus de de 20 ou hectares. il y aura un de mille camions ou 2000 camions sur place. am ay dépôt de cimenterie am ay dépôt ceeb diwlin conteneur am beneen genre port boo xam ne indi benn faculté comme ba habitation bi day gën a day gën a soqaliku foofu les Maliens vont venir investir là-bas parce que boobaa dañuy dañuy gën a jege ñoom seen port. boo ko defee fii Sénégal ñun ñii moom suñuy camion on pourra travailler du midi à 14 heures. sans problème. parce que chaque jour ku nekk day mën a charger et que tous les camions que ça soit 4 aciers 10 aciers ou 3 aciers chaque camion aura une charge utile de tonnes parce que au-delà chaque camion pourra faire 3 à 4 le, mois ou 5 voyages envers Dakar Kidira parce que c'est 700 kilomètres ça va être plus facile léegi le Malien qui quitte euh, Bamako pour venir jusqu'à Dakar pour faire kilomètres il va faire 600 kilomètres pour prendre son marchandise pour le ramener à, à Bamako ce sera plus fiable et ce sera plus rapide aussi moo c'est ça que je propose le président de la République pour mu jéem a créer comment faire pour avoir un port sec aussi jéem a xool ban loi la ñuy mën a tëral pour camions yi daw ici au Sénégal à partir de 22 heures 22 heures dina fekk oto yi wàcc taximaan yi wàcc njaganjaay yi wàcc ñëpp dem seen kër camions yi mën a jël relève bi daal di mën tali bi féex mais selon les conteneurs nag ñi nga xam ne dañuy liggéey ci conteneurs yi di jël ay conteneurs di def ay livraison ñooñu c'est pas mën nañ liggéey matinal bi et tout ça mais tey boo génnee tey stale bi da ngay gis ay gros porteurs yëpp ay 50 tonnes di buuxanteeg taximan yeeg jakarta et tout ça. Mhm. loolu il faut accident am ñu waxante dëgg aussi transporteurs yi aussi. xoolaat seen bopp quoi. d'accord ci laa doon ñëw sax euh, euh, kuréel yi nga xamante ni euh, moo leen ëmb yenn chauffeurs yeeg yi ñaata kuréel la wala ñaata kuréel moo ci gën a. na kuréel boo déggee kuréel juboo wa tax ñu naan kuréel. kuréel da ngay dañuy juboo kuréel tey jii ki am benn oto transporteur la ki am 10 oto transporteur la ki am 20 oto transporteur la tey boo déggee kuréel ñi naan kuréel kuréel day fekk ñu juboo ah leen non bu fekkoon tey am na tey 20 kuréel wala ñaaf kuréel fii ku nekk ne sa bopp ngay liggéeyal tey looy bañ sa morom moo ngi koy jël soo nee doo ma du ma fay doo ma fay ton vingt deux mille kay dem na jël tonne vingt mille bi dem jël ko dem yoonam à la fin nous sommes plus respectés par les Maliens Mm-hmm. parce que loo bañ sa morom moo koy nangu. nga jàkkaarloog askan wi. oui mm-hmm. c'est ça. d'accord mu ngi noonu waxtu wi xëcc na jëm ci jeex xam naa ne dama lay bàyyi rek nga euh, tàggatoog euh, askan wi. Mm-hmm. xanaa balaa ngay tàggatoo tam dig ñu wax lu tax nga bàyyi théâtre bi ak kañ ngay ñëwaat. <laughs> non léegi am nga xaalis. yaa ngi non non du question amuñu xaalis mais ñoo ngi sant yàlla parce que boo xool tamit aussi théâtre bi dafa xaw a métti quoi. tous les scénarios se suivent et se ressemblent en plus de gis mbër boo xam ne dem si àll bi wala mu dem. géej taqal yaramam suuf ñëw Gaston fay koy million euh, combat boo xam ne du saf xorom du saf suukar kon pourquoi pas comédien kon comédien bu ci nekk tamit balaa ngaa balaa ngaa jouer théâtre wala dara dañ la fay lu ko jar quoi pour nga mën a taxaw mën a taxaw si scénario mën ko jouer plus de des minutes et tout ça. Mhm. yombul daal en fait quoi. maa ngi fi quoi man suis j'occupe de mon travail. di masawu aussi tous les transporteurs yoo xam ni bi dal na leen. Mhm. xam nga di gërëm sama grand transporteur ñoom moom Merng ñoom Faris ñoom Daniel Mor Meng depuis Thiès xam nga ñoom Ndiasse ah, ñoom Jabel xam nga ñoom Tafa sama Tafa mécanicien tout le monde daal xam nga di leen masawu ñi nga xam ne am nañ ay problème et tout ça quoi di ñaan nag. président bi dimbali ñu te yàlla tax parce que tamit aussi fii jeune transporteur yëpp Macky Sall ñu àndal ah. Mm. ñun transport Sénégal Macky Sall ñu àndal. parce que lu bëri tey bu changé tamit yàlla ak moom la mais na gën a yokk woo gars yi ñu ñëw toog seen i carte grise fi ñu yàqule mu jéem leen jox ay ndàmpaay jàppale leen dimbali dimbaliwaat leen pour mën a relancer parce que lii bu ci waxul nii transport Sénégal fi lay doxee yàqu ba faw mm. parce que Maliens yi respecté tuñu yi. il faut des normes de travail yoo xam ni day day baax ñu am ay aire de repos dans tous les régions du Sénégal parce que benn sénégalais chauffeur warul mën a jël oto dawal ko 400 kilomètres sans arrêt. mais yéen tam est-ce que mënu leen def ay ñaari chauffeur ba ñetti chauffeur ci benn oto. non ñaari chauffeur ba ñetti chauffeur ci benn oto benn camion mënul fay ñetti chauffeur. chauffeur benn chauffeur la mën am mais ngay wut ñaar. mais ñaari chauffeur xam nga par exemple oto du du du ñaar nit ñoo koy dawal oto benn nit moo koy dawal c' est des routiers mais si on a des plateformes des ay de repos loolu yëpp du ko jar parce que booy dañuy jël fi oto yóbbu ko ba Burkina Faso ba Ghana ba Côte d'Ivoire dañ fay dem ay jàmbaar lañu. Mhm. fii lu fi transporteur am chauffeur moo la ko may. waaw fii lu fi trans sa kër ngay tëdd di nelaw. ñoom ñooy dem di indi xaalis beeg yooyu yëpp et tout ça. mais actuellement nii amul benn chauffeur boo xam day nelaw wala benn transporteur boo xam day nelaw. parce que nous sommes en risque. d' accord di ah, masawu aussi ñi ñi ñi ñi génn àdduna. oui mais trop parce que métti na je demande la euh, le gouvernement mu dem naam def leen ay nampaay parce que tamit ñooñu ñu leen oto bi yéegee ñu jël seen bakkan et tout ça kenn ku si nekk per de famille la am loo loo xam ni yaa ko yoroon sa famille sur une fraction de seconde oto malien yi ñëw leen noonu. ngeen génn àdduna métti na trop di masawu famille di leen di leen jaal leen et tout ça mais loolu lépp na ci njëkk président de la République moo leen mën a def nampaay boo xam ne tamit dina xaw a tane tuuti. Mm-hmm. mais tamit ndogal day am tamit aussi peut-être seen bakkan foofu la ko yàlla tuddee woon quoi. Mm-hmm. dañuy sant yàlla di jéem ñaan yàlla dëkk ñaar dëkk yi nga xam ni mu Sénégal ak Mali yàlla def fi jàmm quoi. Mm-hmm. waaw ñu defaraat transport bi ba pare jàppale chauffeur yi aussi. jàppale apprenti yi parce que boo xam day topp ci benn oto des années. rien que pour mën a am permis pour mën a ëllëg dem liggéey. Mhm. transformé am nattu yàlla la quoi parce que tamit ñun lu ñu yor jënduñu ci kër. takkuñu si ay jabar fu ñu gis camion bu 20 millions 30 millions balaa takku sax ñu lijjanti jënd ko. Mhm. boo ñu doon jaay kër 10 millions duñ ko jënd. d'accord transport lañu bëgg. doo gërëm sa xarit bi Ameth. waaw maa koy gërëm baax parce que ko. Eh, yor daal xam nga liggéey bi moom moo ko yor moo mooy booleeg yéen ñi ñëw mën a def lii yëpp et tout ça quoi. Mhm. mais dafa nekk boo xam ne si urgence lañ nekk di ñaan yàlla affaire bi jàll ba ñëpp mën ci jot. pour ñu a a ne transport sénégalais ak ñi nga xam ne ñoom ñoo kuréel yi nga xam ne ñoom ñoo ko yor mais actuellement nii moom am na ñoo xam ne fu ma nii bàyyi nañ transport te actuellement nii gëm ma ni nit dootu na jël xaalisam di ko dugal si transport ak situation bi fu mu tol nii d'accord Mohamed nu sant sax <laughs> ayca mi ngi noonu mbokk internet suñu gaal 24 euh, ñu ngi leen di jaajëfal lu baree bari mbégte la woon ñu dalal ko moom Souleymane euh, mu daal di wax euh, naqar ak tiis ak yëg-yëg bi nga xamante ni moom la am ci kaw tali bi waaye tamit Mouhamed Fall mi nga xamante ni moom la àndaloon ñu koy jaajëfal lu baree baree bari borom mariste ah doom yaayu Souleymane di leen jox rek dig daje xam naa ne beneen émission lay doon keneen ku may dalal rek ak ci lépp lu mu mën a yëngu rek ñu waxtaanee ko Dóor waar maa ngi koy jaajëfal lu baree bari moo nekkoon ci technique bi ak ci image yu yanj yooyu la di ko jaajëfal jërë ngeen jëf